non, non, non, non ak i ñooñam daal nañ taxaw temm ne ñoom duñu dem ci dialogue bi nga xamante nii moom la njiitu réew mi daal di woote li ko waral ne ànduñu benn yoon ci ndogal bi nga xamante ni nii kii di njiitu réew mi daal na ko jël dàq lii di élection yi. yow nga dindi concerté bëgg a delloo di si ne nañ ñëw concerté boo concerté woon kay ba muy dindi bu nekkaay kaay leen ñu dialogué bu doon da ngaa dialogué bi ngay dindi sooy indiwaat dialogue bi dina mën a am sens mais yow bi ngay dindi tàgguwoo kenn tey nga bëgg indiwaat ne da ngay kii donc. mu mel ni rek lim jàpp mooy lii di décision conseil constitutionnel dafa daal di leer nàññ kii di président Macky Sall li ko war mooy mu organiser élection yi ci nu mu gën a gaawee laata le 2 avril. mais en 2024. ñu ne am na ci ñoo xamante ni recalé nañ leen ñu ne kon léegi on va reprendre tout le processus mais au nom de quoi kenn comprendrewul te loolu jàpp nañ ne du dëgg du yoon te histoire dina retenir képp koo xamante ni yaa jàppale président Macky ci mbir mii ñu jàpp ne njombe gënu ko mag. mu mel ni moom mile bañul lii di amnistie bi wante rek li mu gis mooy faaw ñu leeral li lëndëm ba pare ci mbir mi. li ñu daloon ci amnistie yi romboon mooy ñëwaat. ndax amnistie woon nañ baale ay crime de sang baale ay crime financier te terewul ba tey jii may wax ak yow 1000 milliards Covid 19 bi kenn xamut lan moo ci xew ak yeneen ak yeneen yi nga xamante ni jàpp nañ ne la corruption et la malgouvernance bokk na ci lu téye suñu réew mi donc ñun jàpp nañ ne vérité d'abord réconciliation ensuite. muy wéy di woo sénégalais ñu wéyal lii di mobilisation bi ngir rek ñu mën a xeex li nga xamante ni nii mu ngi am ci réew mi te kenn waralu ko lu dul président Macky Sall.